waxoon nañu ne attey sharia at-taklifiya juróom lañ indal jumhur waxoon nañ leen ni abu xanifata dafay tàqale farata ak waajib ni muy tàqale xaraam ak makruh bu ko defee atte yi ci axnaaf yi ñoom juróom-ñaar la doon te di gis benn ci anam yooyu yooyule ci suñu jàngatu xaram maanaa makruh ci ñoom dafa am makruh tahrimi alxaraamu luxatan al mamnuu lu xaraam wala xaraam ci luxa mooy luñ tere istilaaxan al xaraamu maa naha maa naha anhu shaaricu ala wajhi al ilzaami bittarki ci listilaaxu xaraam mooy lu aji yoonal ji ki yàlla tere ci anam ak waraluk baax loo xam ni sharia dafa tere nga def ko sàkku ci yow sàkkuk waral ci nga bàyyi ko lu mel ni uququl walidayn dënge ñaari wayjur shari'a daf ko tere terek waraluk ba sama borom wax na ko wala taqul lahuma uff yonentu sallallahu alayhi wasallam boole ko ci akbarul kabair attey lu xaram yuhaabu taarikuhu imtihaalan wa yastaxiqu lciqaaba faaciluhu soo bàyyee lu xaraam te topp suñ borom subhaanahu wa taala moo tax nga ba ko maanaam li ko suñ borom teree tax nga ba ko xamal ne sama borom dana la ci yool dana la ci xëy soo jànkuwanteeg lu xaraam maanaa soo ko defee xeeyoo nga mbugalam borom bi yal nañ ci yàlla boole musal lu xaraam nag danañ ko tuddee maxduuran maxduur mooy lu ñu wëttandiku wala lu ñu wëttandiku loo mamnuan danañ ko ko tuddee lu ñu tere danañ ko tuddee maasiya ak mooy danañ ko tuddee dëmb mu bàkkaar ibnul qayim rahmatullahi alayhi wax na ne bu ñu teree te leeral tere ga leerale ko baatu tahrim danañ ca xamee ne mbir ma lu xaraam la ni ki wax yàlla jëm ne xurimat aleykumul maytatu xurrimat aleykum almaytatu ak xurrimat aleykum ummahatukum ñu xam ne lekk midd ak sëy ak ndey ak ña topp ca ndey yépp ci laay ja ca suratu nisa xaraam na wal xawar wal waid ala al fi'li yàlla su teree ba pare tëkku walla mu tudd jëf tëkku ko def dañ ca xamee ne jëf ja dafa xaraam niki innama yaakuluuna fi butunihim naara ñi nga xam ne dañuy lekk xalali yatim mu ne nañ xam ne safara la ñuy sol ci seen biir ak ñi nga xam ne dañuy jànkuwanteeg riba mu tëkku leen fa fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulihi yàlla kum wax ne danaa xareek yow war ngaa tiit wax na ci xadiisu qudsi yi ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xarbi ku ma noono ku noonoo sama waliyu sama waliyu déclaré naa la guerre tëkku googu tax na ñu xam ne noonoo waliyu dafa xaraam walla jëf ji ku ko def ak kafaara war ci yow ijaabul ci bil fi'li yàlla nee na yàlla du leen jàppee law ci ngëñ waaye nag dana leen jàppee bi ma aqadtumu laymaana mu ne fa kafaaratu itaamu ashirati masakin lii wane ne ngëñ goo xam ne boroom daf ko def amul droit bañ def lam gëñ ndegam lu dagan la ndegam topp yàlla la lii wane ne boroom xaraam na mu bañ def lam waat ne dana ko def mooy fa kafaaratuhu itaamu asharati masakin ndax ba mu ko bàyyee waral nañ ko mu kafaara lu dut nag mu gëñoon loo xam ne xam na ne bàyyi gaa gën mu ba ko du tere yi dana kafaara nee na it lafdatu ma kaana lahum kada walam yakun lahum amuñu droit def lii waruñu woon a def lii ñeelut leen woon ñu def ko nee na bu ko shaariu tuddee it dafay wan ne jëf-jë lu la wala xadd am ca jëf ni ki ku xas gor gu jigéen yàlla ne fajliduuhum hamaanina jëldëtën ñi nga xam ne dañuy xas woy sangewu yu jigéen ñi te amuñu ca benn preuve mënuñoo indi ñeenti seede yu dëggal lañuy wax yàlla ne faj li duuxu nañ leen caw ak wax ji wax ne aji njaaloo ju jigéen ak aji njaaloo ju góor ku nekk ci ñoom na ngeen ko caw téeméeri yar waaye loolu day fekk sangewuñu bu fekkee ñu sangewu la nag atte ba gën na sévère loolu mën na nekk sax li ñoo tuddee li ñoo tuddee capital penalty maanaa su seede ya taxawee su fekkee jëkkër nag moo tuumal jabar walla moo fekk jabar di def loolu te mënu ko prouver moom duñ ko wax ne ko wutil ñeenti seede dañ koy wax ne ko mën ngeen a rëbbu bu ñu rëbboowee say batas ak baatu laa yaxillu fu mu ñëw rek ñu xam ne lu xaraam la daganut ni ki waxi yonent jam wax ne laa yaxillu maalu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi dafa tudd jullit rek ngir wane teraangaam waaye lim jublu mooy alal kumu kumu du dagan mukk lu dul ci teeyu bakkanam lu dul nag ñu nekk ci jamono yi xarb loolu beneen situation la yàlla ne jëf ji xéwénut wala shaari wax ko maanaam yàlla wala yonent bi ko wuutu sallallahu alayhi wa sallam wala mu melal jëf ji ni ak yàq la wala mu ne jëf ji taaraluk seytaane la wala mu ne jëfi seytaane la wala mu ne yàlla bëggut ko wallahu la yuhibbu alfasad wa zayyana lahum sheytaanu amalahum yooyu yëpp li muy wane mooy jëf ji dafa xaraam wa annahu la yardaahu li ibadihi ni ki waxam jëm ne wala yarda li ibadihi alkufra la yarda subhanahu wa taala li ibadihi alkufra mooy gërëmut ko yàlla nee na gërëmut kéeféer ñeel jaamam yi wala shaariu ñëw ne laa yuzakki faaila hada alfiili aw laa yukallimuhu aw laa yanduru ilayhi wala mu boole yooyu yëpp ni ko waxee ci laayaat yu bokkut laa yukallimuhum allahu yowma alqiyamati wala yanzuru ilayhim ak euh, wala yuzakkihim ak yooyu yëpp yàlla du leen sellal du wax ak ñoom du leen xool nee na yooyu yëpp bu ko yàlla waxee ak yu mel noonu la muy firi mooy jëf jë dafa xaraam kon yooyu ñooy baat yi tegtale ne mbir xaram na ni ko ibnu qayim rahmatullahi alayhi waxee léegi nag lu xaraam ñaari xaaj la am ñaari xaaju xaraam moo am xaraam li zaatihi ak xaraam li gayrihi alxaraamu li zaatihi huwa ma xakama shaariu bi taxrimihi ibtidaa mooy loo xam ne moom ci jëmmi boppam moo xaraam maanaam ñaari xeeti xaraam lu xaraam ci jëmmi boppam ak lu xaraam ngir leneen lu dul jëmmi jëf ja li xaraam ngir jëmmi boppam mooy loo xam ne sharia daf ko xaraamal ibtidaan ci njëlbeen duut dafa xaju ci leneen lu mel ni njaaloo sharia daf ko xaraamal ibtidaan lépp loo xam ne nag sharia daf ko xaramal li yi ngir jëmmi boppam bu amee aasaar shariya du ca toftaloo luy loolu mooy képp koo xam ne ànd nag jigéen ci anam ak njaalaw attey sëy du ca toftaloo attey sëy bokk na ca ya cay toftaloo walla bokk na ci attey sëy walla bokk na ci yay toftaloo ci sëy bu ca doom juddoo ñu askanee ko baay ba bu ca doom juddoo war donn baay ba bokk na ca yey toftaloo ca sëy ya sëy di waral joxe dépense waaye ki ànd ak jigéen ci anam ak njaalo bu ca doom juddoo du jël xaskanu baay ja bu ca doom juddoo du donn baay ba maanaam baay ba du baayam dépense warul ca baay war warul ca waajoojee sëy ak ndaw soosee ci anam ak xaram lu tax dépense war maanaam non seulement bàkkaar war na ca waaye lépp lu ca amee ci loo xam ne ci sëy la daan amee du jël àtte du jël àtte boobale beneen misaal mooy sàcc la koo xam ne dafa sàcc alal jël na alal ji mi ci moom waaye moome li ñuy tuddee tamalluk ak milku nga xam ne bu la nit jëlee jox la yaa ko moom boo jëndee la cay eh, sosoo mooy ak moom waaye nag alal ji nga jël ci jàmbur ngir ci jaaree ko ci sàcc du tax nga moom ko walla li ñuy tuddee midd su fekkee ne médd dafa xaram duut ne lekk ga rek moo xaraam waaye jaay ko yi tamit dafa xaram te buñ jaayee dara nga jënd ko lañ ca daan amee mooy ak moom daan amee mooy ak moom loo kon ja moom loo ci njaayum mbedd du wér moom tamit ci njaayum medd du wér maanaam ki la jaay am medd moom loo gim la ko moom loo ci yoonu njaay wérut yow jënd gi nga ko jënd ndax medd la du tax nga mën ko moom liñ bëgg a wax mooy medd gannaaw dafa xaraam xaraam naa lekk xaraam naa jaay xaraam naa jënd naka noonu tamit takk koo xam ne daganut ci sharia nga takk ko moo xam yaay la moo xam mbokk la moo xam tànt la moo xam bàjjan la moo xam doomi jiitle la moo xam goro la xam nga sëy bu amee bànneexu dafay dagan sëy bu amee dépense dafay war sëy bu amee yépp yoo xam ne mënoon nga koo am ci sababu sëy su fekkee da nga sëy ak koo xam ne waroo sëy ak moom doo ko mën a am non seulement da nga am bàkkaar waaye ya sëy doon joxe amuloo ko yow boo sëyeeg soxna si walla sa borom kër sañ nga bànneexu ci moom mu sañ a bànneexu ci yow bu fekkee nag ka sëy ak yow du ku mën a sëy yow ci charia sañ a bànneexu nga du am bu ñu déggee daal dañuy xam ne lépp loo xam ne sama boroom xaramal na ko benn def ko xaramal ngir wëttu diine walla wëttu bakkan walla wëttum xel walla wëttu der walla wëttu alal yi ñuy tuddi ab daruratul xams lii sama borom di xaraamal yépp daf ci sàmmwanteeg yii xam ngeen ni medd àndut ak wér-gu-yaram xam ngeen ne sàngara àndut ak xel xam ngeen ne xaste dafay yàq der xam ngeen ne sàcc dafay jël yëfu jàmbur xam ngeen ne bokkaale dafay yàq diine yooyu yépp borom bi araamal ko looloo tax gannaaw sama borom dafa bokk ci maqaasit yi wëttu yile wala yooyooy maqaasit yi bés bu yooyu taxawee war a yàqu te du baaxee ci wala du jubbanti ko du sauver lu dul ci jottalikoo lëf ci lu xaraam lu xaraam loolu fay mujj nekk lu dagan ana luy loolu xam ngeen ne lekk mbir kat fa fa ndax baaxut ci yaram baaxut ci nàngam waaye ki nga xam ne nag toll na ci am xiif ak loru foo xam ne bu lekkut medd dana dee te amul lu dul médd kooku lekk médd dootut xaramati naan sàngara dafa xaram waaye ki fot te amul dara lu mën a naan lu ko mën a dindil fot ma amuñu lenn luñ mën a jëfandikoo lu dul sàngara boobaa sàngara ba dootul xaramati waxuma la dafay dagan waaye dafay war ngir sauver bakkan kon tudd nañ lu xaraam ci zaatam ci jëmmam mooy loo xam ne moom ci boppam moo xaraam te it suñ ko jëfandikoo jeexitu sharia du ca toftaloo ñu joxe ci misaal ci sëy ak koo xam ne waroo sëy ak moom jeexitu sharia mooy lan mooy boo sëyee war nga mën a bànneexu dagan na nga bànneexu ca ka nga sëyeg waaye gannaaw ki nga sëyeg waroo sëyeg moom jeexitu sharia kiy bànneexu doo ko mën a am ak yeneen misaal yiñ joxe ñaareelu xaraam bi mooy lu xaraam li xëyri yi ngir lu dut moom mooy loo xam ne ci cosaan daganoon na waaye dafa am lum lëkkaloog lu ko yóbboo ci lu tax mu xaram dafa am lu lëkkalook moom lu tax mu xaram loolu mooy lan lu mel ni an nazaru lil mara marati al ajnabiyati xool jàmbur bu jigéen xam nga xool dagan na xool jàmbur bu jigéen dafay yóbbu ci bànneexu dafay yóbbu ci dafay bijji njaaloo jaay ak jënd xam nga dagan na waaye su fekkee waxtu wa ñuy julli jumaa la mu xaram ci koo xam ne jumaa war na ko mu xaraam tamit ci ku jumaa warut mu jaay walla mu jëndee ci ku jumaa war njaay ci boppam dagan na waaye bayu najis bayu najis dafa xaraam lu tax mooy war ga ca nekk ana luy loolu mooy man may jaay dara lu war a jar junne waaye ma bëgg koo jaayee lu ëpp loolu ma ne benn waay bu mañ bu waaj di wax ak man rek ñëwal ne fay nga ci sept mille cinq cent junne juróomi téeméer ngir mu fay ma ñaari junne wala ngir mu yokk wala mu nangam ba ca loolu amee rek mu xam ngeen ni sëy eh, na waaye tey bu fi xarit fase woon jabaram te doyalu ca waxtaan ak yow ngir nga dem takk ndaw sa fase ko ngir daganal ko sa jabar ngir daganal ko daganal ko sa xarit sëy boobu dafay mujj dafay daldi xaraam donte sëy dagan na julli lu ñu yoonal la benn muy farata wala muy la waaye bu dee julli la boo ci suuf suñu këf nit koo xam ne dafa nangu suuf si jàmbur julli ci suuf su jàmbur soo xam ne danga koo nangu ci moom daganut wala jàpp ci ndox moo xam ne dañ koo fëkk walla ñu sàcc ko daganut te jàpp kay lu ñu yoonal la waaye lëm lëkkaloo muy ndox muñ fëkk moo tax fase dagan na waaye talaaqul yi dafa xaram ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko tere lii nag nga xam ne mooy alxaraam li gayrihi ñu tudd ci misaal yi li ko wutaleeg bële mooy benn du moom moo xaraam lam lënkalookat lëk lënkaloog moom moo tax ñaareel bi it mooy boroom xam-xam yi wuute nañ ci ndax ay jeexitam dana ca saxe wala du ca saxe yenn ci borom xam-xam ñu ne ay jeexitam du ca saxe ñeneen ñi ne ay jeexitam dana ca saxe ànd ak nag bàkkaar am na mathalan waa jii dafa fase jabaram ci jamonoy mbërëg xam nga sa jabar sañoo koo fase su fekkee ne dafa am règle su amee règle ba règle ba jeexi tamit soo séqeek moom dara sañatoo ko fase lu dul nga xaar ba mu amati règle ba mu jeex séqook moom dara nga soo koo fase moo tax boo defeewut noonu <clears throat> tàbbi nga ci faseem bidaa léegi nag ki fase jabaram faseem bidaa mooy fase na ko ci jamono ji mu mbërëgee al jumhur lépp ci borom xam-xam yi ñu ne am na bàkkaar waaye fase ma tàbbi na am ñu ne déedéet gannaaw faseem bidaa la te dañ koo tere fasama tàbbiwut naka noonu sëyub koo xam ne dafay daganal dafay sëy ngir daganalal xaritam ñii ne sëy ba baax na ndax takk ga moom la ca war yëpp def nañ ko waaye nag dana am bàkkaar ndax la tax mu def ko ñii ne déedéet sëy ba baaxut ndax dañ koo tere naka noonu tamit julli ci suuf suñ fëkk ñu ne julli ga moom bu ñu indee sharta yàggee te war yëpp julli ga baax na bàkkaar bi nag mi ngi ci fëkk gi fëkk suuf imaam ahmad ak ñand ak moom ni déedéet julli ga baaxul naka noonu ndox muñ fëkk naka noonu naka noonu yooyu mooy yenn ci masala yu aju ci lu xaraam ci jëmmi boppam ak lu xaraam ndax lam lëkkaloog masalaa ngi nii nag bu aju ci lu xaraam comme niñ leen ko diggee woon mooy tafriqul axnaafi bayna al xaraami althaabiti min nahyin qatciyin wa bayna maa huwa haabitun bi nahyin ghanniyin ñoom su fekkee ne lu xaraam al ahnaaf mooy waa kër abu xanifata ida kaan alxaraamu habata min nahyin qat'iyin mithli alqur'ani wassunnati almutawatirati wa xaraam ñu ne bu fekkee ne <clears throat> liñ tere dafa saxee ci dalil qat'i yi mooy lu ñu dogu ak saxam lu mel ni alquran kenn du ca weerante benn laaya lu mel ni sunna soo xam ne su am tawaatur la sunna su am tawaatur mooy lim ba ko déggee ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam na ba nga xam ne mënuñoo déggoo ci ñoom ñépp wax ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ba pare te fekk demeewul noonu wala ñu juum ndax ñoom ñëpp la yonent bi wax nettali nañ ko diw nee na yonent bi nee na diw ne yonent bi nee bi nee na ba mu ñoom ba mu mat lim boo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo ànd ci wax lu newut ñoom ñëpp mënuñoo ànd juum ña ko jëlee ci ñoom mat lim boobu ña ko jëlee ci ñoom mat lim boobu ña ko jëlee ci moom mat lim boobu ba bi muy xagsi ci ñoom mu mutawaatir loolu nag lu néew la ci sunna al qawliya waaye bari na ci sunna fi'liya ñu ne bu fekkee ni liñ tere anam googu lañ ko tere alquran moo ko tere wala sunna su am tawaatur ñu ne loolu mooy lu xaraam waaye su fekkee nag tere ga nahyu zanni la nahyu zanni mooy loo xam ne xadis a ko tere xadis gi wér na gaa waaye benn nit walla ñaar wala ñett ñoo ko soloo ci yonent bi sallallahu alayhi wala bu fekkee ne ña ko soloo ci yonent bi bari nañ tamit ci diggante bi ba ba muy agsi ci ñun am na ci benn level boo xam ne aaxaat la fa mooy benn wala ñaar wala ñett ñoo ko solo ca ñooña wala ñooña wala ñaar wala ñett ñoo soloo ci ñoom bu amee loolu rek ci chaîne xadis bi ñoom tereg njort maanaam ñoom tereg njort googu duñ ko jàppee lu xaraam dañ koy jàppee luñ sib sibuk xaraam maanaam luñ sib sib goo xam ne daal jege na xaraam waaye yeggul ci xaraam nag waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ñoom tàqalewuñu luñ araamal fekk dalil ba dalil bu ñu dogu la wala dalil ba dalil bu ñu njortu la moo tax wuutee yu mel ni su amee dafay tax jaam bi war a def ndànk léeg-léeg ci yoo xam ne ahadisu ahad la surtout loo xam ne e, boroom xam-xam yi dañ cee wuutee xam nga ku mel ni Malik léeg-léeg dafay am problème ak ahad su fekkee ne dafa aju ci pas-pas moom ak yeneen i boroom xam-xam am na ñoo xam ne nag ku mel ni imaam Ahmad amuñ ca euh, problème waaye ku nekk ci ñoom wax nga lu tax nga am ca problème ak nang ko ca amee yooyu nag dafa jar di bàyyi xel euh, te boo xamul rek li ñuy wax lack of knowledge is not knowledge it's just lack of knowledge nga dem laajte ji mbaa nga toog déglu fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun nañ yàlla boole defaral xam te ni nga xamee ne noonu la borom bi bëggee ak ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam bëggee bi barakatihi sallallahu alayhi wa sallam hada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي